waaw xam nga euh, bi découvrir biodigesteur, yi li ma njëkk le ministre de l'environnement pour que contact yi may def ak convention avec la pêche avec l'agriculture, nous ak euh, agriculture ñu aussi avec le ministre de l'environnement parce que la dégradation de l'environnement daf ñu poser problème ndax jigéen ni bu ñu bëggee veulent bëgg safara dañuy dem gor te àll bi kenn waru ko gor lu bëri def ci ajo surtout ñun fii waalo dafa jege désert donc dañu soxla garab yi bon bu fekkee ne am na alternative boo xam ne du ñu gor du ñu gor garab yi loolu déjà dañ koy saluer moo tax maa ngi yàkkamti dem ba nettali ko le ministre de l'environnement monsieur Daouda Ngom li ci nekk aussi moo di non seulement dina leen permettre ñu am gaz te gaz nag mënul a ñàkk day Sénégal sax mais boo demee dans les pays européens euh, wala nga dem ay Amérique yooyu dañuy subventionner gaz. surtout pour seen magni parce que ga euh, parce que gaz mënul ñak li safaral bi nga xamné mom lay moy utilitaire mënul ñak donc dina leen permettre ñu togg seen euh, togg ci sen famille té duñu duñu soxla charge gaz mais aussi dinañu am xaliss parce que dañuy jaay engrais bi té ci affaire engrais bi sax fi ñu taxaw euh, normalement hangar mo fi waroon nek ndax té DER dafa tam ku mu bala muy financer nit dina la former bala muy financer nit dina xol sa formalisation manam sa kayitu juddu euh, GIE wala budé yow kenn la nuñ lay jaarale ci yoon wayé dinañ la gunge té DER dafa wara a ñi nga xamné ñoy ay bénéficiaire té nga xamné dañuy jaay engrais war nañ leena a wutal benn hangar léegi wax ko équipe bi mhm. ñu xalaat wutal leen engrais euh, hangar. Mhm. bo xamné ci lañ koy def. angar bu am solo bo xamne ne du soxla di élargir nañ ko def bu mu reuy mm-hmm. wa der yi rek buñ ko soxlawul ñoom it ñu luyee ñeneen ñi nga xamne ne euh, ana monsieur ki xamna né dina dina kélé wayé bénéficiaire der yi mën nañ leena luyé su ngeen soxla ñoom tam lool lepp ci ay activité de euh, créatrice de richesse la te li ci gëna am solo modi di yi am luñu japp mm-hmm. parce que xalé yi bu amé luñu japp xamni li buñ koy def dina dimbali seen jabot dina dimbali seen famille mais dama bëgg itam waxtu wu ñu defatee benn biodigesteur ñu gis fa ay ndaw ndaw yi dinañ mën a ñëw jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi tam ñoom bëgg nañ biodigesteur bi ba bëgguñ cee xajal kenn wante nag ma madame Ba fa ngeen dugal ci xale yu góor yi dinañ leen jàppale ci liggéey bi parce que doole ji day néew yenn saa yi mais dinañ leen di calculer dinañ leen di dimbale mais aussi dinañ leen ci nu ngeen di nu ngeen di nu ngeen di jaay yëf yi di ko wàcce ak diko yegal su ko defé nak euh, ñomit comme suñu cible lañu na ngeen wut nak ñu amagul ñeen fi at mm-hmm. xamna ni xeyna du yomb mais bu leen mëne ba fixé fi ba ñu mos xaliss bi di jaay ak di mëne seen dootu ñu dem fenn mm-hmm. té lool dina leen fixé lool motax contane ci torop te projet la bo xamné ne euh, li ñu njëkk xalaat der moy fexé ba réew mi yépp mm-hmm. sentir ko parce que waxtu woo xamé amuloo këriñ amuloo gaas li ngay jëkk xalaat mooy dem ci àll bi gor mat pour ñëw toggee ko te loolu dafa war a xewi